Amadou Baxaw Diaw mooy suñu gan euh, ñu ngi lay nuyu bu baax euh, mu notable notabilité euh, coutumière ci waalo ñu ngi lay nuyu Diaw. waaw ñu ngi lay ziar di la fay. Mhm. di la nuyu ci turu waalo yëpp. jërëjëf. waaw kon waaw waalo waalo yi tey ñoom ñoo ay Chérif ñu ci waxtaan bi. waaw parce que waaw bëggoon naa waxtaan moom tuuti ci affaire production wu oignon bi. xam nga en 2012. 4 mois rek la production bi doon couvrir. léegi nous sommes à 10 mois. donc 10 mois Sénégal dana produire oignon. donc euh, phase production bi y a eu beaucoup d'avancées. maintenant le problème qui se pose c'est le stockage. et l'emmagasinage c'est-à-dire que fu ñuy def oignon bi. fu ñuy def oignon bi nag léegi kooku beneen phase la. foofu ay privé la état bi war dimbale ñu def ay magasin de stockage. magasin de stockage yooyu nag dana yomb. avec la production gazière nga xam ni énergie bi dana wàññi. Mhm. courant dana wàññeeku. ensuite ñu def ko solaire bu boobaa dix mois ya nga xam ni du koy produire daañu man conserver soble bi pour yeneen quatre mois ma fàttali leen aussi itam ci département bu ma jóge bi mhm. ci Dagana euh, deux mois lu ñu amoon en 2012 production wu pomme de terre. Mhm. seen seen India mi ngi produire à l'heure actuelle soixante mille tonnes. nous sommes à neuf mois. bi nga xam du koy produire du ñuy couvrir pomme de terre. léegi nag. état bi moo war wut benn ligne de crédit xaalis permettre euh, entrepreneurs yi ñu def ay magasin stockage mu defal leen crédit à longue durée. Mhm. comme ça vallée bi yépp am ay magasin stockage magasin yi ci kaw am ay solaire ak courant comme ça mu nekk électricité bu yomb ñu mën garder production maraîchère bi mais nag le président Macky Sall lu mu waroon def ci mandat def na ko jóge na ci 4 mois couverture oignon mu ngi ci 10 mois. jóge na ci 3 mois couverture pombiteer waaw mais mi ngi importé mais xam nga ku jóge ci 4 mois dem ba ci 10 mois kañ def nga jéegu léegi kañ nguuru Macky Macky Sall ci boppam pare na kuy ñëw ki na fexe indi magasin hmm, yaa ngi xaar loolu xëy na indi magasin te mottali 4 mois couverture yi hmm. tàmbali na d'ailleurs euh, y a un ou deux privés yoo xam ne tàmbali nañ. voilà c'est ça le problème euh, léegi nag ligne de crédit lu waroon am bu mag ligne de crédit ba nga xam ne daañu lebal privé yi. Hmm. longue durée ñu ubbi yu bare. chaîne de valeur bi. foofu xam nga matière agricole. wut xaalis du mbay bi. ka nga xam ni da koy jëlee ci tool bi di ko jaay koo koy am xaalis. c'est ça foofu la xaalis am. d'accord léegi nag euh, yow moom comme histoire Sénégal daf laa yitteel nga ci intéressé wu euh, ñu taxaw ci wàllu googu ndax démb sax fële ca marine am na gaal gu bees guñ fa daloo muy patrouilleur boo xamante ni nee nañ sax gis nga ko ci gën a. technologie daal xarañ ci lan bokk président moom moo ko daal di inauguré ñu tuddee ko le waalo yéene nga fa ak les waalo waalo euh, ban yëg-yëg nga ak lan ngeen jàpp ni message la boo xamante tuddee nañ ko. waaw ñun nag euh, waalo duñ kiy sagu lool kontaan ci lool nii président Macky Sall fabee benn patrouilleur benn navire de guerre tudde ko waalo loolu nag lu normal la ndax waalo ci boppam tey la waalo ay waaye réew la woon waalo moom mag réew wolof yëpp benn réew rek moom mag waalo mooy Tekruur kon nag boo fabee dàtt wolof yi fa nga xam ne foofu la wolof yi cosaanu ndax waalo foofu la wolof yi cosaanu foofu lu ñuy defee seen institution foofu lu ñuy defee seen premier royaume nga fab navire de guerre bu mel noonu tuddee ko waalo ñun duñ ci saw hmm. man ñëwoon naa foofu ak sama cousine Nafi Sidlen Samba Yom en tant que autorité coutumière amoon naa tam le président du conseil départemental Khalifa Ndaw ak le responsable des maires ma dikki Mbodj ñu ñoo defoon délégation population waalo hmm. kontaan ci loolu et eh, président Macky Sall mu ko tudde bato bi kontaan ci waalo ci boppam war nu ko tuddee navire de guerre hmm. navire de guerre ndax waalo ci boppam bañ waalo symbolique mooy bañ hmm. euh, navire de guerre boobu nag ñun du leen di yàpp noonu waalo waalo di bañee yan na navire de guerre boobu di bañee ku dugg suñu eau territorial noonu la navire de guerre boobu ak ay mataloom ni ñoo lànk kenn du ñaax suñu géej hmm. kenn du dugg suñu géej donc euh, wax naa commandant bi ni ko ñun bu doon suñu sago sax euh, marin bu ñu yeewoo wayu ajaambana waalo bañ na lu leen yëkk tegal ba ñu xam ne du ñu war bañ ndax euh, bañ ci ñun waalo waalo yi moo boobu du am solo la parce que euh, même duñ ko mu utiliser comme mbañ da ngay dégg mbañ paate mbañ mm. kujje mbañ mbàcco mbañ refi refi lu am solo la mm-hmm. donc bateau boobu ci boppam waa waalo du leen di yëpp pour ñu refuser bañ suñu territoire suñu exploitation gazière ko ko laal et tekki nag bateau bi dafa nar surtout liggéey ci façade maritime waalo parce que foofu la gaz bi feeñee. façade maritime waalu Mauritanie. Mhm. ak façade maritime waalu senegal ndax euh, zone boobu yëpp. ñaari réew yëpp ñaari réew yëpp waalu exploitation ñaari ñaari zone yëpp waalu la. Mhm. waalu ak waalu Mauritanie. Mhm. donc ñu kontaan ci lool et li ñu naq rek mooy que démb <clears throat> euh, militaires yi xam seen lépp dafa chronométré. Euh, protocole yooyu waaw seen protocole ñun nag bëggoon nañu bu ñu ñëwee. et ñuy indaale tamawaalu yi indaale fas yu fekk yi. ñu feete ko ndax euh, France ci boppam mhm. euh, bu ñuy inauguré seen bateau de guerre mhm. à à Concarneau wala Brest dañuy indi ay binuwi ay breton yi dañuy indi seen ndiig yooyu indi mhm. indaali seen bëgg def seen aada culture waalo fu mag waaw léegi nag comme que ñu non bu ñu tuddee bateau bi buus na bu joolee indi seen bu gërëbu ñu ne bu ñu tuddee waalo du ñu bàyyi ñu indi suñu tama indi suñu fas ñu fekk et beneen bee itam euh, préparé woon naa aussi itam indi leen juróom benn bouteille Evian benn bouteille Evian bi ndoxu jukk la mooy fleuve Sénégal. Mhm. jukk la tudd ci wolof. Mhm. beneen butéel bi ndoxu taway la. beneen butéel bi ndoxu lac de guerre la. beneen butéel bi ndoxu gorom la beneen bi bu lamsaar la beneen bi joos la mooy juróom-benni juróom-benni cours d'eau. Mhm. yu arrosé waalo ñu sangati ko batu bi. de façon traditionnelle balaa ñuy démarrer. Hmm, xëy na loolu c'est pas trop tard ko am tradition. Hmm. ci lépp looy def. mais armée bi am xëy na bu ngeen bu ngeen ko waajoon am na yeneen yoo xam. am na fane bi am na mais bu ñu tuddee benn navire Sine na séeréer indi seen pangol def keneen def hmm. kenn bu nekk na def. muy solo nation comme da wax nation nag ñu daw ci Sénégal boo xamante ni gis nga li fi xew fan yi euh, gi ba sax gis nga ko ay attaques yu ni attaqué ay bus ak yu ni mel ba ay nit di ci ñàkk ba kanam yéen ñi xam histoire bu ngeen doon méngale la ngeen daan dund ak euh, yaa ngi wax waxu refus wante est-ce que loolu li situation Sénégal lu bees la fi. waaw du lu bees gis nga société précoloniale lutte de pouvoir bi amul benn société bu gënoon violente suñu société. Hmm. mu di ci tukulóor yi mu di ci wolof yi. société bu violente moo fi am yow jolof jolof Alboury Ndiaye euh, avant combat bu mujj def Ndiamé Ndiaye boo frère am da rey. da ko rey ba pare dagg loxo bi. Euh, jéeri joon naan du ñuy dagg baat bi on était extrêmement violent bu ñu xeexee ba pare du ñuy démembré imagine toi nga rey sa adversaire démembré ko donc nous étions une société très violente léegi mu am mutation colonisation ñëw désarmé guerrier yi fab ay ville créé ko Thiès Rufisque Gorée Dakar en nag boo xuloog nit doo fa fetal da ngay porter plainte mooy doomu ndar yi moom benn civilisation en ville ñuy porter plainte di fab différent yi bañ ko def ci gànnaay hmm. euh, sëñ Touba ñëw société wolof bu amoon bi jër yi mu désarmé leen mooy itam jàpp leen yar leen ñu leen dem leen defi commerce hmm. bu leen naan rek des naa leen kafe tubaab hmm. dem leen ngeen bay dem leen ngeen liggéey dem leen ngeen jaamu Yàlla pacifier kër yi pacifier population bi Seydina Malick Sy moom dem en ville fekk fa population ba nga xam ne colonialiste yi ñu ngi leen enseigné Coran village jàng leen wasifa pour bàyyi leen ñu bàyyi tox bañ dem ci salle de jeu yi donc suñu société mujj pacifié wu jóge woon ci sauvagerie barbarie boobu mujj pacifié wu léegi nag euh, système yooyu moom la ñu amatu système yooyu ñeent la soit da jàng ci daara ñu yar la soit nga jàng école soit ñu yar la nga am tradition soit nga am métier nit nag bu amulee yar ci seen kër. jàngul école. jàngul métier jàngul dara. mën na nekk bàyyi ba ba nga xam ne lu nekk mën na ko def. ndax doomu aadama il faut que nga nite loolu ñu yar. léegi nag du ñu am problème mooy que on a boom démographique man ba may def école primaire dans les années début des années 60 jaxa maa doon axaanee di wax ni non le Sénégal est peuplé de 3 millions d' habitants. nous sommes man 3 millions d' laa 18 millions yooyu un quart est Dakar le quart qui est à Dakar environ des deux tiers se trouve entre Pikine Kër Massar mais ces gens là foo leen di wutale fu mu jànge noo leen di wutee foo leen di faje noo leen di joxe euh, euh, kii sociaux yi besoins sociaux yi noo koy defee. Hmm. ñu leen di jur ñi ak seen i waajur bu ñu yeewoo suba. ñuy jël jóge 6 heures du matin jël Kër Massar jël euh, euh, Ndiaga Ndiaye daw biir Dakar di daw di daw di daw di daw bu ñu ñibbisee Kër Massar ñu ngi fiy dellu si bi xale bi ci boppam ci diggante bi kan moo ko yar day dem seet kan moo ko yar loolu mën naa justifier violence ah si parce que xoolal xoolal xale ba nga xam ni papaam ak yaayam nekkuñu fa journée bi yëpp day yaroo ci mbedd bi ba pare yàlla notre problème qui se dans tous les pays du monde entier le downtown la banlieue les suburbs les ghettos c'était c'était zone de violence euh, France banlieue zone de violence la Amérique ghettoom zone de violence la euh, favela wu euh, Brésil zone de violence ñun suñu favela yi day nekk zone de violence mais zone de violence boobu nag bu ñu ko capitaliser politiser ko day nekk bombe mais dëkk yëpp amul benn dëkk ci monde bi ba nga xam ni centre de superstructure bi banlieue amul benn dëkk ba nga xam ni fu ñuy xalaate fu ñuy nase fu ñuy waxee lee baax li baaxul du banlieue amul fenn du banlieue tubaab bi tubaab yi seen banlieue du leen teg fee. mais violence boobu doon gis ne genre apologie ñoo xamante ni vraiment dañ koy def sax di ko def ak mbégte wala di ko kañ ba ci réseaux sociaux yi. mooy safara fan gis nga bloqué nañ sax internet bi. ay safara safara bu ñu ko d' abord on a un problème avec safara. taal du ñuy taal mu boy mu tàkk. na tàkk na boy mais on a un problème avec le ah léegi nit mën nga xuloo nit fa fetal fetal ko. Mhm. fetalal nit ki. mais taal. boo taalee dóom nga jëm ci dóom xam nga dóom nit ki dina nekk dóom matériel bi dina nekk dóom gàncax gi dina nekk dóom bàyyi ma dina nekk dóom ku ci bokkul dana nekk dóom taal moom taal taal la mais naka lañu la ñu war a def mais naka la ñu war a def mooy que ñu delloo si euh, d'abord benn mbir mooy que il faut que ñu def exode urbain il faut que ñooñu ñu génn leen foofu ñu dem bay wala ñu dem ñu jaraat leen jàngaraat leen ñu delluwaat seen dëkk xaj xajatul Dakar nit boo amulee éducation bi dem fenn France ci boppam depuis à peu ñaar fukki at France dafa sonn ak ay bërëm France lu nekk def na ko pour seet ay immigré doomu immigré yooyu ci bandi lu mu leen di defaree mënu ci dara Amérique def na affirmative action discrimination positive bu nekk Amérique def na ko pour jox ghetto noir américain yi mënu ci dara mais léegi ñun du ñu am ay sénégalais du ñu joolaa du ñu séeréer du ñu wolof amuñu aada wolof du ñu murit du ñu tigaan dara. ASC Géejawaay laa bokk ASC Géejawaay day day football ak ASC Pikine bu ñu footballee pare bu fab jaasi ñu xeex. violence bi yàgg na yàgg na am na fukki bu ñu commencé bu ASC amee ba pare bu ñu footballee ba pare mu am benn kaw kaw urbain yi man maa leen di wax kaw kaw urbain yi taxaw di xeex ñu leen leen di xeex ñun lan la noo ASC bi dóorante jaasi ñooñu dinañ da nga leen di yóbbu arena ñu football ba pare toj chaise. ñu leen lan la ñu football ba pare génn. kar jigéen ngi foq seen caq door leen bu amoon na mais léegi nag am na ñi nga xam ne ils ont réussi à canaliser hmm. ces pulsions de mort vers la politique hmm. mais doo dem mukk diggante bokki jawwe wala benn dëkku tukkuleur ñu football ba pare am na ay essai foofu ñu football ba pare kenn ko def génne si gaz yi doo dem mukk diggante war xoox ak euh, Linguère ñu football ba pare génn gaz sauvagerie kaw kaw wu taax yi ñooy football ba pare génn gaz di ko dóor ci asphalte di def ni di kar nit ñi hmm. ñu nekk benn barbarie Sénégal gisutoo fi ba léegi nawetaan ci boppam mu musiba la nawetaan kenn mënut ko def. amul moo mais ci géewu politique bi lañ ko gë mais léegi loolu ñëw ci géewu politique léegi nag yow bu dee mën nga politique mën nga populisme léegi nag mu am TikTok mu am réseaux sociaux réseaux sociaux yi bu njëkk ci pénc benn waaye dafa daan jël kaddu rek ñu ne ko dof bi noppi kii day yàq pénc et eh, dof fi wax. Hmm. mu noppi am na ñoo xam ne war nañoo wax ci mbooloo. waaw doo wax ci mbooloo. ndax boo ko bàyyi mu wax ci mbooloo mën na wax ay ndugur kii imam bi wala leneen ndax dof la day tas day tas mbooloo bi bu commencé rek ñu bul wax léegi nag ñooñu ndox bul wax dañuy toog seen biir néeg defar seen vidéo wax xam nga wax bi dem na multiplier ko par x mm. wax bi dem mais wax bi moo wax le récepteur kan moo koy recevoir mm. mais benn xale ba nga xam ne papaam ak yaayam xëy ñëw liggéey bi ngi toog ci chambre am amee tiktokam récepta recevoir ko te amul benn élément de comparaison mm. kooku moo xam na boy na taal taal leen lépp na takk mu jox day dem taal léegi nag problème boobu mooy que kooku di joxe information ak kooku di recevoir léegi ñun on n'a pas les moyens. yi amuñu moyen formé kooku mu wax dof boobu di wax léegi itam mënatuñu téye dof boobu comme ni ko daan téye ci penc bi ñu ko dof bi bu fi wax. ndax da ngay tas réew. léegi dof bi di tas réew nag ñooy wax te seen wax dafa gaaw lu ñuy wax léegi. cent mille xale yu nekk banlieue dégg seen wax. Mm-hmm. te waxu foo natt ndof ci wax ju bon wax jooju. parce que yaa ngi wax waxu safara sànq ak danger bi ñu nekk ci àll yëpp daanañ gis sax même daay buñ ko taalee li mi def ci ay dégâts wala nga taal taalam nekk euh, fii sax gis nga ci ci loi yi tamit ku ko def tamit boo sax gis nga ko ay chambre criminelle lañ la yóbbu ngir àtte ko fa mu mel ni kon danger safara ñi koy foyee ñooñu est que ay nit la waaw mais safara dafa am beneen mbir bu am xam nga safara doomu aadama buy dem di utiliser safara dafa dellu paléolithique néolithique ndax première arme bu doomu aadama bu mu nekk bàyyi ma safara ndax ba mu découvrir safara la xam capacité de destruction safara mu commencé fab safara di ko dóor nit ñi mais mu xam ne nag safara musiba la dana rey ka nga rey ka nga bëgg ki rey reyaale gàncax ga reyaale nit ñi reyaale jàmm après nit ñi civilisé bàyyi seen arme de combat safara ni safara moom baax ndax arme de destruction massive non contrôlée la ñu dindi ko mais léegi di nga am problème man depuis dafa am benn fascination fascination du feu safara na boy boo leen déggee na tooy da dëkk bi boy lan nga xam nga boy boy mooy lan mm-hmm. boo taalee bu boyee mooy dafay jàpp mm-hmm. c'est-à-dire nga taal fii mu boy dafaa taal dafay dem rek c'est-à-dire doo contrôler bu boyee foo jëm yow léegi bol mën na boy sax safara bi def retour de flamme lakka la rey la mm-hmm. léegi daa nga rey ko comme ñooñu san doon ci biis bi mais kenn xamuñu ne ko ci bis bi yan parti lu bokk ndax biis bi day euh, day indi kanes dopp Euh, tout euh, kii ah, bis boo defee ah, sondage arrêt bu mu def dina ñii yëg voilà ñii yëg tu vas trouver toutes les facettes de la population sénégalaise nga fab sa bopp sànni xamuloo xale bi bu am fukki ak benn da nga ci dee xamuloo ko ci dee si yoon nekk na tàkk na ngeen xoolaat ñaari mooyu élément de langage boobu na tàkk na boy da ngeen xool na nga bind moo tàkk boy kii bi moo boobu si récemment utilisé da nga xool nii di wax ci réseaux sociaux non na dëkk bi tàkk na boy mais boo taalee station d'essence bu boyee non mën nga ko taal mais boy boy beneen affaire la mooy que dafay. doo xam fu waaw doo xam fu mais dana boy rey la reyaale dëkkaale yi reyaale nit ñi donc nous on a un problème avec le feu. léegi na problème avec le feu là il faut que ñu régler ko léegi ndax. beneen nguur dana ñëw keneen dana ñëw keneen bu ñëw léegi nag bu keneen ñëwatee. Euh, bon sous préfet bi amoon na benn match euh, nawetaan. wax na ni léegi day arrêté nawetaan yi. Mm-hmm. nga mer nga fa taal préfecture bi. très bien mhm. Ibou Diouf ensuite Malick Thiam. bi Diaw euh, wax nga ko léegi que société bi bu njëkk dañu xawoon violent donc am ñu fi jaar bu mel ni euh, Cheikh Ahmadou Bamba El Hadj Malick Sy am liggéey bi ñu fi def euh, ñu jéem a tabax état aussi ba teg fi loo xamante ne fitna bi ñu doon nemmeeku wàññi ko kilifa yi dolli ci am na loo xamante ne jot nañ ci waxtaan léegi maag yow mu aju ci cousinage ak yi bokk ci li nga xamante ne ku mel ni Léopold Sédar Senghor tegoon na ko fi ngir fexe ba rataxal diggante joolaa bi ak séeréer bi diggante séeréer bi ak alpulaar bi jóob ak njaay faal ak jàng mm, voilà loolu ndax daf fi dañ wala dafa xaw a tumuranke parce que léegi gis nañ ne am na ci ñoo xamante ne boo ne politique rek dañuy fàtte ne ñii ay gàmmu lañ ils sont à tout cousinage à plaisanterie da nga koy def ci conscience historique da nga koy teg ci lu leer doo tëb rek nga ni euh, tukulóor yi ak séeréer yi cousin présenté la il faut nga expliquer nit ki que protonation sunu nation ñi ngi ko créé au Tékourou il y a mille ans ci la dëkk ci la séeréer dëkkaale tukulóor dëkkaale faak wolof dëkkaale faak soninke de ce fait ñun suñu vivre ensemble du léegi yeneen pays africain yëpp tubaab bi duñu fab seen équerre ak seen compas te carte bi ñëw rek dessin fab ethnie bi ethnie bi dagale leen ñu nekk état ñun du loolu ñun on vivait avant tubaab bi ñëw nii Sénégal mel ci contour géographique am moom lu mel y plus de 1000 ans. de fait séeréer ak tukulóor dund dëkkaan y a 1000 ans ba sant yi day dugg di génn wala fa séeréer séeréer par exemple amul benn voisin séeréer xëy na cousin mooy tukulóor xëy na cousin mooy jolaat mais séeréer amul kenn ku mu dëkkaaleel ku du wolof voisin immédiatement wolof la. koo dëkkaale ngay séenteel koy dëkkaale te ngay def boo dee séeréer yi illoo la ci biir pays wolof séeréer yi ci boppam cousinage ba ngay wax ak joolaay mais ñoom cousin cousin lu ak joolaay mais parent lu nu ak mandeng yi xam nga cousin donc parenté beeg seen mande mandeng yi moo gën fort ndax ñoominke yi mooy séeréer yi ñoom Yékini ñoom Adji Sarr ñoom ñëpp c'est des métis de séeréer et de mandeng l'aristocratie séeréer est d'origine gelwaar mandeng donc lu séeréer seq ak man rek moo ëpp fot solo lu séeréer seq ak jola lu séeréer seq ak moo ëpp lu séeréer seq ak ndax bawol boo demee bawol fan la séeréer bi commencé mhm. fan la wolof bi commencé du ñu mélangé mhm. boo demee au Kajoor les séeréer noonu saafeen paloor ñu ngi ci diggante libu yeeg wolof ñu ngi ci jaxas ko mhm. mais loolu mën a expliquer yooyu yëpp nu ngi ko wax ñu génnee ko génnee wane ni nan lu ñu jógee te kuruur dem Waalo dem Siin dem Saalum ñu enseigner nit ñi nan ban processus historique mhm. la suñu nation créée mais doo yeew rek di wax vivre ensemble ñuy wax ko de façon théorique nous voulons plus société bi dafa nekk société historique am na ci kenn ci yéen bés bu nekk de quoi est-il le jour muy def xaw ma de quoi est-il le nom de quoi est-il laaj man non man dafay laa dëkk man xaw ma fu mu dëkk donc oh, là je a ahuri de trouver une population ahistorique on njëkk a sànku sànq bu jiitu mooy yow fa nga juddoo fi màggee fa sa bàyyi jur la fa xamuloo sax foofu lan la kooku sànq la kooku ne man nga lakk man nga lakk lu nekk mën nga taal lu nekk lu nekk mën nga ko def ndax xanaa fu ma juddoo màggee bu ma sama baay ak sama yaay sax waxu leen ah, fii na dëkk bi ni lu tudde bu ma ba mag xanaa dinaa am xelu ni waa ah, dëkk bi nan la tudde sa vrai ah, doo ko doo ko taal de boo xamee dëgg dëgg waaw waaw xanaa doo ko taal waaw mais yow xamuloo dara boo ñëwee rek suba dañ ko gisaat ngeen doo laaj leen leen non man de xaw ba kii mais ñii fu dëkk ñii ñii lan la ndax joolaa boo laaj kalu nay te loxo du kalu nay man boo nee ma euh, Richard danaa la wax ni Claude Richard moo ko tudde boo nee ma Dagana man la ku ñuy wax daa jóge Gànnaar moo ko senk xam na ñëpp xale yëpp xam nañ ko mais ñooñu du ñu am conscience historique peuple day am Cheikh nee na boo amulee conscience historique doo dara kon ku bëgg a nekk patriote da jëkk war am conscience historique da nga war xam fa nga jógee fa nga nekk ak fa nga jëm. mais ñi yàqu vivre ensemble boobu classe politique est-ce que amuñu ci responsabilité parce que léegi li ñu gis leader yi mooy ku ci nekk fa nga dëkk ngay identifié woo boo dëlee Fuuta tey par exemple Macky ak ñim ànd ak naan suñu titre foncier la Dagana googu ku mel ne Omar Sarr aussi ne maa moom nga dem Ziguinchor ñu naan Ousmane Sonko fa nekk loolu lañ gis léegi ci géopolitique Sénégal. non mais par exemple papaam ak yaayam ñoom ñoo. ñoo ko mais àndal ñoo ko. waaw da ngay déglu ma nga juddoo Fatick ci biir séeréer yi. waaw bu mu juddoo ci biir séeréer màgg ci séeréer yi. tukulóor yi sax yu bari neen mu làkk tukulóoram setu ba pare mu takk jabaru wolof wolofoon dina moom biir këram kenn làkk fa tukulóor donc yooyu wax yooyu waxu daan sax donc man mii di la wax Macky Sall moom gën nekk sénégalais ndax man waalo waalo la waaye bàyyi naa la man wa yaay waalo waalo bàyyi waalo waalo jabar waalo waalo doom waalo waalo dëkk waalo man raxuma mais moom dafa rax jabaram ak ñoom seen man moom Sénégal la Sonko Sénégal